kenn mënta diingat ngir sunuy noon rus ba wedam ci lu ñu amul dara lu ñu nu tuumaal waxal it jaam ñi ñu déggal seeni sang ci lépp te liggéeyal leen ba seral seen xol bañ cee boole werante mbaa sàcc waaye nañu wone takkute gu mat ba rafetal ci lépp njàngaleem yàlla sunu musalkat